ni mu mel doy na waa Dakar nga kees ku nu jàpp rek te yàlla tax moo nu gënal Mbàkke nun na ñu di sa gannaaw suba ba ngoon na nga yeggali fi nga bëgg jëm yal ñu fa jëm raay bu du weeraay daa war a kor nekk moo waral ma def loo ni ma def Mbàkke yal na mu gudd fan ak koo xam ne waa mi jaay waa ajaratu amitin laa ilaaha illallah eh falaw bu su jaxlew ba càmmiñal ma reema waaw kii day day sama xarit sama wasila wala ñu ko tuddi sëñ Fallu looy ñaar si kanam loolu laa sëñ Abdou Karim loo sëlëm sëlëm du dañ waa ajaratu nan di ni ngi nii rek ci yow bëgg leen lu ngeen ne loolu la ne lu ngeen bëgg bëgguñu ko di jigéen bëgg a liggéey te amuñu ku ñu jàppale nan de yàlla na ngeen yeggale ci duwal yi Sëriñ Tuuba bëgg naa leen de bu doon noppee nag ngeen wax ci sama borom kër pour ma seetal fii baax na waaw dama ko amagul sëñ bi kan wax coow waaw kon nag dégg ngeen ki ñuy bëgg a dugal Baye Ibra ndeysaan tàccu leen kan jalama dun sanne Baye Ibra binaa ne jàmbaar nga waawaaw kan jalama dun dam ne Baye Ibra binaa ne jàmbaar nga ndeysaan kan jalama

sant suñ borom mi nga xam ne moo may dëkkandoo yu baax ba soo woote ñu wut waaye Serigne Fallou ñu ngi lay nuyu yaag njabootu Serigne Touba gi nga àndal waaye yaag jëwri yi nga àndal di la seereel ne nag sa maama fii ci jataay bi ñu di ko wax bàyyi Cheikh Diop Matar bokk ak maam sooda maam sooda ah, mu soxna may wajur soxna may ak sëñ Amadou Moutar maa nga nee toog ñoo bokk benn baay ba mu déggee ne da ngay ñëw la génne ab seesam teg nee ne ko bu ñëwee ne ko sa maam nee na mi ngi nii sa pegg bu ñu noppee incha allah danañ fa dem nuyu ko moo sëñ Amadou Moutar dafiy yónnee mboolem sëñ Cheikh Dara man dafi daan ñëw ndax seen maama maa nga nee toog ànd bi ñu ànd ak yow balaa suñ tàgg bee tegg ko da dégg wiiw conseil départemental te loolu am nañ ci preuve bu wér te bu incha allah danañ ko gañee ndax fii ñu dëkk 35 bureau de vote la mi ngi fii 35 bureau de vote te xam naa bi ñu defee sondage guy mbind 99 virgule 99 koo wax mu ne man kay bu ma naree war a fas moom saa bàyyi ñu lay seereel ne ne mboolee maa ngi nii ñun nag lan la waxoon rek nun amuñu kàddu waaye mbooloo mi daal maa ngi bëgg soxna amitiin soxna yaa ngi nii toog nga jàppale leen dafa leen ay formation yëpp loo man ubbi leen ay compte financement nuy liggéey foo gëstoo gis leen ndax Serigne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma baax ma ka daa waxoon ne ko amul njëriñ amut koo xamul noo koy jariñoo moo am bu la leeree ne lii ngay amee ci ñoom njariñ ñu ngi nii tin duxuma sa digganteek ñoom bala nga fay jógee ñi fi responsable yi fi nekk yëpp danaa la jox seeni i numéro ngay coordonné ak ñoom yéen ñi nga xam ne nag yàlla dogale na yéen lañ fekk si bulletin bii danañ ko fi ba waaye mooy bi nga xam ne moom la ñuy wote bu yàlla dogalee nga dem ci mbaar ma juróomi kayit la juróom wet koo ci tàmbale rek bii mooy ne ca digg ba wet goo tàmbalee rek bii mooy nekk ca digg ba bii daal mooy coalition Yewwi Askan Wi te Serigne Fallou Mbacké jiite département bi ñuy ñaan suñ borom ci barkeb maamam yu tedd ya suñ borom dolli ko may ndam waaye nag ñuy ñaan ndam yooyee bu koy am noonu waa Touba Guy mi yàlla nañ bokk ci ñàkk koy may te loolu maa ngi koy séen soxna maam jaara ja ñoom ñi mu àndal ñëpp kenn ku ci nekk ñu xam ne daal fii moom Serigne Fallou ngi nii Ayda wax na ko léegi mooy borom Touba. mooy borom Touba kuy sa baay Serigne Mbacke Sonlo kuy baayam Serigne Cheikh Gaynde Fatma kuy maam Cheikh Moussa Mbacke Serigne Touba Khadim Rasoul bu dee wër yaakaar naa wër ta xëccam réew Mbacke Balla jërëjëf Mbacke ñu ngi lay dalal baax jërëjëf Mbacke. waaw waaw ndeysaan waa waa dama ni kii dimbali sones bi. ki nga xam ni moom la sëriñ fallu Mbacké moom sëriñ Mbacké Soxna loo doxale digganteem ak ndaw ñi muy jàppale ndaw ñi nga xamante ni yàlla daa dogal ñu doon jàng ba jamono xaw a jàpp seeni waajur ñu xaw a mel ni man seenum njàng nar a yàqu sëriñ Fallou di ko booleeg jàmbaaram ji mu di leen jàppale ba seenum njàng àgg ba ñu mën a liggéeyal senegal waaye di jàppale seenum réew muy Serigne Mbacké jaw waaye xale yi jigéen yi nga xamante ni amuñu ab liggéey tamit mu di leen jàppale na ko ñëpp tàccu na ko ñëpp tàccu waaw ba mu bari. asalaamaaleykum asalaamaaleykum waa Guy Mbind ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp. ñu ngi leen di siyaare yéen ñëpp kenn ku nekk turam ak santam di jiital ci nuyoo bi ba Ibrahima mi nga xam ne moom la ñu fekk tey di ko jaajëfal bu baax di nuyu xale yi nga xam ne itam ñoo fi nekk lu ci mel ne Madiaye Diop ak ñoom Mor Ndaw ñu ngi leen siyaare bu baax ak jeunesse bi nga xam ne yàlla dogal na tey ñu sol ay t taxaw nii di ko wan ñi nga xam ne ñoo ànd ak sëñ Fallou Mbacké que quartier Guy Mbind ñu njëkk a commencé porte jël nañ fi lu toll ak xale yoo nga xam ne ñii sol t-shirt yi tey ci lañ bokk ñu ñëwoon dugg ci koñ yi koñ bu nekk kër gu nekk ñu dugg fa waxtaan ak nit ñi wax leen lan mooy coalition Yewwi Askan Wi ak buñ ca àggee nan la ñuy votee kon loolu mérite la ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax xale yi. di présente rek délégation Serigne Fallou comme ni ñu ko waxee à tout moment dañuy jóge fii jàll feneen te waxtu wi dafa xaw a gàtt moo tax xam naa jombul euh, ki nga xam ne mooy introduire Omar mbay soo paree ñaari orateur rek lañ fi am amitin ngay dugal suñu ko paree nga jox ma kuram wax ci turu Serigne Fallou Mbacké. waaye daal ci leeral Baye Ibra jarul ma lay présenté nit ñi ndax xar kanam yi fi nekk miin nga leen bëriwut lu fal luy dem di ànd ak délégation bu toll nii kon jàpp naa ne jox na dayoo sa bis ndax ni nga waxee ak moom ak ni nga jëfee ak moom beneen bi ci des itam mooy fa sa fa nekk ca liste bi doy na màndarga kon loolu itam mérite la danga nga koo liggéey ñu delloo la ko comme ni ñu koy waxee mbooloo mi kon Serigne Fallou Mbacke moo ñëwal boppam ànd ak Serigne Abdourahmane Mbacke ànd ak Serigne Cheikh Mbacke Gelongal ànd ak Makoura Thiaw ànd ak responsable des femmes am ajaratu Amitine ànd ak soxna Ndeye Ndeye sëriñ basiiru Kayre soxna Maguette fuma soxna Soda Ndiaye Cheikh Mbacke Diaw Moustapha Kane Moustapha Diop Baye Fall sëriñ Cheikh Kanji ànd ak Mourtala Niane Mohamed Dian ak Omar Mbaye géwélu géwélu Xaadim Rasul donc noonu la délégation bi composé woo kon xam naa pour ñu bañ a guddal rek ñu jox la nga introduire amitin mu wax ci soxlay jigéen ñi bu ñu paree ñu jox sëriñ Makoura mu wax ci turu sëriñ falu Mbacke asalaamaaleykum wa rahmatullah ah, waa Guy Mbind ñi ngi leen di nuyu baax di leen ziar di leen nuyu nag ci turu sëriñ Fallou Mbacke ak délégation bii mu àndal waaye nag di leen nuyu ci sunu turu responsable Adja Amitine mi nga xam ne mooy responsable des femmes di leen nuyu tamit yow baay Ibra ñi ngi lay nuyu baax di la ziar di rafetlu mobilisation bii fi am tey. ndax fii ko gis xam ne wax dëgg yàlla mbooloo mi fi nekk macha allah ah ñu xam ne nag li nga xam te ne moo ñu dajale fii muy élection locale yi di ñëw muy ñu war a xeex ci list coalition Yewwi Askan bi list bii ñu fi taxa taxaw tey ji nag xam naa du ma ci sori sax ndax Baye Ibra moom yéen incha allah dañoo war a jàppaleen ndax seen leader seen responsable lañ samp investir ko ci position boo xamante ne bii macha allah. kon yaakaar naa ne yéen dañoo ñëw pour ànd ak yéen ngir ñu fal Baye Ibra parce que fal sëñ Fallou Mbacké mooy fal Baye Ibra mii ndax mi ngi ci liste bi te yéen bu fa nekkee ëllëg li muy kaasu yéen la koy kaasal waaye nag ma dégg fi ay njàmbat yi nga xam ne moom la jigéen ñiy wax muy ay formation ak ay financement formation de liggéey nañ ci loo xamante ne bii ci turu Serigne Fallou Mbacké mii 2017 ba léegi bari na foo xamante ne bii jaar nañ fa former ay jigéen tey jii seeni kees mi ngi ci un million yu tegal ndax lan Serigne Fallou de du jàng du may nit ki aw jën daf koy jàngal nu mu nappe ji parce que fekk nit muy muy muy ci koñam jox ko xam-xam boo xamante ne bii sooy dem fa fay fa koy bàyyi te su ëllëgee daf ciy génnee bénéfice boo xamante ne bii dana dem ba dootul soxla ay banque donte nag financement fi mu ne ku waay wax wax ko. kon nga xam ne li nga xamante ni bi mooy doxinu sëñ Fallou rek mooy du ñu jàngal nit ki aw jën di maye ay ñaar téeméer ak junne ki déedéet daf lay jàngal xam-xam boo xamante ne bii su fa jugee fa la koy bàyyee ànd ko suñu responsable nga xam ne fu mu for fu mu formé soo lëggee mu ñëw fa def financement kon nag ñu leen di ñaan ndax ku ne xam na ne di fi si ak élection yi jàmp na xam ne ku ne xam na ne élection yi suba la campagne bi di commencé te diggante fii ak campagne bi 14 jours képp la ñu bëgg nag li nga xam ne ñu ngi leen di ñaan Adja Amitin mii incha allah dinañ àndaat ñëw fii defal jigéen ñi guy mbind formation dinañ leen jàng def ko aussi ay financement ndax ku ne xam na ne formation ñu la jàngalee xam-xam ba nga man ko daanu la financé ngar nga am loo jàpp. kon nag li ñu leen di ñaan yéen sama mbokk jigéen ñi nga xamante ne bii ku falu yéen ko fal ay jàmbaar ngeen fu ngeen nekk fu ne fu ñu mos a fu ne jigéen ñaa fa man kon nag ñi ngi leen di ñaan ngeen voté liste bii incha allah te kenn ki nga xam ne mooy responsable bi jël na numéro Adja Amitine incha allah dinañ fi ñëw defal leen formation jàngal leen xam-xam boo xamante ne bii bu ëllëgee bu ñu dem fi lañ koy bàyyi mais nag ngeen xam ne li leen di tax di liggéey tey jii derrière sëñ Fallou Mbacké koo gis doo laaj fu mu dëkk. ndax koo ko gisee Baye Ibra bi ngi dox ci ak njàmbaar kon nag amut tam lu jigéen ñi parce que du tay la taxaw fii naan amitié sama jigéen ñi à chaque fois bu ñëwee que sëñ Mbacke soxna loolu li mu njëkk a wax mooy Adja amitié sama jigéen bu leen fàtte kon moom fàttewu leen benn yoon ngalawaay li nga xam ne moom moo ko tax a jóg muy liste bi na ngeen ci jëmbat la ju mat sëkk ak fayda ju mat sëkk ba bu le 23 jotee incha allah ca ngoon liste yeewi askan bi jàll ak euh, largement ba nga xamante ne bii su boobaa seen i conseil ñooy taxaw fi leen jàpp jooxal seen i njàmbat ca xam fa ne mooy mooy njàmbatukaay ba asalaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziar jërëjëf. tabarkalla macha allah waaw mu ngoog de. wallaahi barakaatu. Eh, mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare lu bari lool ci turu sëñ Fallou Mbacké moom sëñ mbakke soxna loo nuyoo bi ak siyaar bi mi ngi koy toog ci loxol sëñ Ibra Kane mi nga xam ne doomi koñ bila la sëñ bi nee na am na mbégte lool ci jàkkaarloo gum jàkkaarloog yéen ak ni ngeen ko tertoo ak Eh, taxaw ngeen taxaw ak mbégti mi nga xamante ne bii mi ngi feeñ ci seeni kanam solo si nag ñi jàll junj nañ ko sëñ bi dafa ñëw ngir libéré nu comme ni ko maamam ju tedd ja defee woon di Seex Mbàkke Gaynde faat ma kon kàddu gi jëm ci yéen mi ngi jëm ci mboolem kuy dégg sama kàddu nan nu bàyyi xel tuuti ndax waxtu dafa xat am na beneen jataay bu mu war a dem ñun ñoo war a sàkku si ndimbal waaye moom waru sàkku su ndimbal ndax yaakaar naa ne koo xamante ne bii sa tëb sëñ Tuubaa nga jamono la soxla waaye soxla woo jamono waaye nag ñun dañuy ay taalibe te moom mii kat ak nu mel ne ñoom ñun ñoo ñëw joxe suñu bopp na ko aslamtu nafsi te yëg nañ ne fii réew mi toll ci njaam lañ nekk yàlla dogal mu bokk ci ñi nga xamante ne bii gis na gis-gis boobu wan gannaaw lépp di xeexal askan wi ngir askan wi am ci am am am liberté kon nag ñun ñoo war a ñëw ci sëriñ bi di sàkku ci moom mu jiite nu yàlla dogal mu nangu ñoo jiite kon na ñëpp ànd ci ransi ci gannaawam képp koo xamante ne bii da nekk ci dëkk bii tànn benn candidat bu dul sëriñ Fallou tànn nga jubadi wala tànn nga ak ñàkk xam. ndax candidat yëpp moo ci gën candidat yëpp moo ci gën ndax jëmmam jii kat ku ne ko jàkk xam na ne Cheikh Mbacké Gaïndé Fatma mooy maamam te lu la waay di gënee lu mu mën a doon lu dul lu dul xam-xam lu dul jukko gënula moom mii nag fa mu bokk bokk na fa waaye lim gën la ñëpp te gën kenn gën lewu ko muy jukko du wor loolu seere nañ ko ci moom lum la wax loolu moo am lii mu wax e soxna Ndeye Leye jàllale ko bu yàlla dogalee li muy yootu mu jot ca muy baatab dogal fas sa yéene def lu raw loolu ndax la woon wee la weesu mooy wane li nga xamante ne bii mooy dëggal kàddu tayam gii kon na ngeen jàppale Ibra Kane ndax moom candidat la war falu mu feggoog moom di liggéeyu liggéeyandoog moom di doomi guy mbind kon jàpp naa ne bu ngeen falee sëñ fu Ibra Kane ngeen fal te Ibra mii kat am na fu mu nekkoon di fi yëngu magam jëmm la am na xel dofut ji di jàpp ko su bàyyee fa mu nekkoon ñu jàppale sëñ Fallou mii xam na ne ak lëndëm bokkut ak leer nanu yeewu nanu yeewu nun waa Touba nanu yeewu surtout jigéen ñi lu waay di bëgg Touba nga koy wutsee bu ñu dikkee ndax ñu jëfandikoo nu delluwaat te yaakaar naa ne kat Touba ku fi ñëw waruñu la utiliser. kon nag na ngeen taxawuwaat képp koo xamante ne bii yàlla dogal na sa wat ba ñu yegg ca na nga jël xam ne yow tey jii lii mooy sa kàddu na nga jël sa carte d'identité dem bureau ba ngay watee nga xool picc mi ñaari picc la xob yi juróomi xob la juróomi xob la waaye juróomi xob yooyu kenn lu jàng di jàng di xam nga am picc picc moomee ngay lem ñaari yoon dugal ko ci carnet dugal ko ci sa ci sa sa enveloppe yóbbu ko ci urne ba laal ca encre ba dem ñibbi toogi di xaar résultat noonu lañ koy defee yéen jigéen ñi bu ngeen buñ libéré góor ñi libéré nañ jigéen ñi yéene des ci kër yi li góor ñi dose li góor ñi yore dëgg-dëgg matut yéene mottali yéene dem yéene dikk wax dëgg yàlla jàppale lu war na waaye il faut ngeen jàppale ku mel ne sëñ Fallou mii bu toogee toogaale leen yaakaar naa ne loolu mooy fula ji kon képp kuy dëgg sama cadre na bàyyi xel ne sëñ Fallou nee na. nañ ko jàppale ci lii muy yootu te ñun ñoo ko war a jàppale mooy yeeweeku ñu ngi ci ñaam te yëgul loolu waaw ñu ngi may wax ne wa kàddu gi kàddu gi ñi ngi ñi ngi ñi ngi ñi ngi gàttalu gàttalu fii ndax xataayi waxtu wi ndax ñii fi toog nii ay doomi soxna la ñu nekkuñ ci ay caaxaan kon nag yéen war a jóg yeweeku nekkun politique boo xamante ne bii da ngay fal nit ki moo wan la ginnaaw fii la dëkk fii la juddoo fii la yaroo jàngi bitim réew dikkaat yaakaar naa ne kooku jomb na di wax ab taalibe lu du lu amut kon nañ jàpp te bu nu bàyyi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw kon xam naa da ngeen dañuy tàllal rek sëñ bi daal di ñaan. tàllal leen tey wax amiin tañu fas ci Sëñ Fallu am ndam lu yaatu amiin amiin amiin raay leen ci seeni kanam auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim barakaatu Seexul Xadiim ñi ni seetaan ak di ñu déglu ñu ngi leen di nuyu bu baax di wax sëñ Ablaye question bi ñu laaj danañ sawar lool ci tontu ci am ci mbégte bu baax ñun ci ay jamono de Ibra Kane APR la doon wax boobaat am na lu ko sababoon sëriñ Fallou Mbacké mii taxaw tey moo jàppoon ci loxo Macky Sall boole ma ak moom am sëñ bi déet ne ko maa boole ak moom sama sama taalibe la sama xarit sama lépp 2008 waaye yàlla dogal nag barab boo fa nekkee te gisoo fa sa bopp amoo fa benn njariñ wàññiku nga fay def waaye yokkoo woo fa nag soo de askora da nga fay jógee te depuis ba ma fa nekkee 2008 ba léegi keroog ba ma ko fekkee këram këram laa ko fekk mer Mouss ne ko président boobu président assemblée la ma ne ko président doon nga directeur de ba ma ko nee doon nga directeur directeur parti socialiste tax ma ko wax ma ne ko doon nga directeur ba doon président assemblée mosuma xam sa biro waaye tey jii nga xam ne nag euh, ñi ngi lay bund xataal te fu ñu la waxee nga ne man sëñ Mbàkke Sonlo tax ma xam ma ma dugg yoonu murit man day nituk sëñ Mbàkke Sonlo doon ne ci naaj may na ci ker fas naa yéene lépp loo nekk ma ànd ci ak yow mu ne ma incha allah lépp lu ma nekk danañ ci waxta man da la ma ko waxoon def naa ko moom nag na xoolal boppam ndax la ma waxoon def na ko wala déet man nag wax dëgg yàlla mënumaa la sëñ Modou Makhtar waxoon ne man damaa ànd ak nit euh, daan waaye duma ànd ak moom di xalan ko loolu laa wax xool naa ba xam ne président ko ànd ak moom da ngay xalan ko ma bakko fa bis na tey nag maa ngi coalition Yewwi Askan Wi ci gannaaw Serigne Fallou Mbacké moom sëñ Mbacké Soxna Lo na tey maa ngi leen di xamal ne depuis 2008 ba léegi tey jii laa ma a gis sama tur ci ab kay aw kay tey tey 2021 bii 2022 bii ci laa gisagun sama tur ci aw kayit teyit sëñ Fallu Mbàkke mi moo ko ca dugal coalition bi nu nekk liste ba mu nekk di liste majoritaire bu sëñ Fallu jàllee incha allah danañ jàll te yàlla na jàll ñu ànd ak jàll kon nag may wax na képp koo xam ne Ibra Kane sa soppe la Ibra Kane sa nit la foo man ne ci biir réew mi ak bitim réew maa ngi lay ñaan di la jox ndigal na leen nan na fi wëng ma ki sàll tey ànd ci liste Yewwi Askan Wi ànd ak sëñ Fallou Mbacké wa salaamaaleykum wa rahmatullah